On va commencer, on vous rappelle que le Sénégal. Le Sénégal est champion Avec. L'étoile sur le maillot compagnie campagne, deuxième session, gardez-vous, deuxième tour droit, classe 2015. Qui Ousmane Sonko Ça va, c'est Bill Holm. Naka bi Sur da nga vous trop. Bu vous Dama lay rek. Mais Vous ci. vous bi vous Tu na de. Vous na ci Vous vous. Trop trop trop trop. <laughs> Maki. Nam. lu nekk ci lacrymogène yi gën a tar waajul si dal tàngal jàpp nañu ko mantane mantane loolu musul am ci tribunalu sénégal daañu ko tëj 3 mois musul am ci àtte sénégal juge bi nee na tàngal dafa am foto Ousmane Sonko eh, waaye ndaw Samba waaw léegi juge war naa wax loolu Sonko démb xoxatal nañ la de loolu reyul nit li nga gis tiitalu la mënumaa tiital ndayam ko la nax maa mbay ñaan nee nga xale bi ma seytaane bu doon bi ma jàkkaarloog moom bët ci beut waxna mako man kon dina xamni gor gor la tassel ma may ñaan da la de ñoo leen ëpp doole fuf ous yaa dem ma mag moytul xalé yi tay la walu gëna ay kon la waji dedet rew mi waaw ñun ñoo leen fi ëpp doole fuf pesi di nga sonko mais loolu fu ko tek moma jaaxal donc mbir mi yombewul niñ ko foggé sonko pesi ñena mo yor doole ji yéen ngi nax seen bop maa ngi def bopp bi e man rek mo si na génne loolu ci bopam duma ko def duma ko def maître sonko ak maki dañ sonko de ku man sa morom duma la min sanan rajim fan fan fan tawa cha cha maki de mo ngi nepp sonko man maki sal munuma titel sonko xana ñu soli la ron demb kenn xamul numu tollu toll maki yorna police ben yorna gendarmerie ñaar GIGN ñett bip ñent militaire jurom ak nervi jurom ben yorna police yorna gendarmerie yorna lumu neex lu ko neex way munuma titel lolu tiitalu la ñun lolu yëngaluñu maki nam gars yi ñoo ngi commencé ah, ko yàq. kon est-ce que doo neex. du ma ko def du ma ko def. kon nag bu ñu taal réew mi moom la bett. ko taal sa ndey. ak yow de. sa baay. ak yow. taal sa maam. tey ak yow. da réew. ma joxoo ma cër. jël ma jox la cër. soxla nga ko. yaa xam. ça c'est bien. Macky joxeel ñaan pour que Sonko nekk président 2024. rajatu xanil mawla Merci, merci. Ah, merci. fermement, On a fait son fermement. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.